Rafah ginnaaw gëstu bu xóot te yaatu mu bind ab téere duppee ko mun naa welu jannaan ngir rekk yaatal ak soññi ndaw ñi ci toolu xam-xam ci diir bu yaatu laata mu koy eggale ren ji ki xaatim téere bi di Serigne Cheikh Sylla ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Sylla Taalib moo doon gaaral boobu la téere Serigne Mountakha Mbacké ci këram gi nekk Daaru Minam ci dimaas bi ñu génn yamook ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars Serigne bi rafet lu ko ñaax ko waaye itam ñaanal ko ngir rekk mu gën a góorlu ci xam-xam incha allah di ngeen def ci ñaan bu baax a baax rek <laughs> def ko ngir ngir ngir foog ngeen fonk xam-xam mu nekk ab so ab soñ ci ndaw ñëpp rek ngir ngir ngir taxawale ko liggéey bi <laughs> fi mu bëgg a jëmee ci yow it man la ñëwaat. waaw góor. mën nga dimbale. waaw góor tool bi. biir bàtt nañ ko rek. yàq dafa yomb rek. dëgg la waaye bàtt nañ ko rek. waaw. ñu ngi sëñ dafa tàggee waaw ah, mooy sëñ dafa tàggee mu Touba ca kanam njiitu Touba ca kanam waaw ci doomi sëñ Moussa Sylla la waaw waaw moog si Ibrahima ci doomam la waaw ok ok incha allah waaw téere boobu nag Serigne si Sylla Taalib mi ngi fas yéene amal exposition bi alxames bi nu jëm bu dellusee see yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru baraxlu maanaam le 1er avril 2021 ci kër Serigne Touba gi nekk Daaru Manaan ancien garage bi. TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer